gars salaamaaleykum Sénégal yi yéen ñëpp yéen ma koy wax dinaa live tey nag Zeynab jot naa ko xawma jay naa jot naa no face dinaa live dina dugg ci live bi moom jay naa dina leeral mu posé ko ay demande mu tontu no face jot naa ko li ma wax tamit xam naa ko te li ma wax tamit lépp a ngi fi tege waaw moom tamit Zeynab li mu wax. dina dugg ci live bi mu leeral ay takk suuf laa takk suuf vidéo intime yi dinañ ci ñëw virginité bi dinañ ci ñëw dinañ ñëw ci lu bëri bu kenn tardé live bi minuit Sénégal gën kaa tuuti minuit 15 wala minuit et demi Sénégal dinaa commencé incha allahu rabbi bu kenn tardé. sénégalais yi ma koy laaj bëri na man nag dugaluma ca ma bopp Zeynab mii moo wër sama numéro sama ñaari numéro yëpp di ma woo di ma woo di ma woo di ma woo rek ñoo may seet seet wu ma kenn non face moom maa ko contacté personnellement pour xam moom it version mais Zeynab moo ma wër ba gis ma léegi nag bu duggul ci live bi moom man kenn du ma yëkkati parce que je suis pas n'importe qui xam ngeen sama jikko ba ci kanam incha allah bi merci beaucoup jërë ngeen